asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, mbokki Sénégal mbokki réew mi mbokki bitim réew fu ay mën a nekk ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara mbokki Sénégal day dañuy dellusiwaat rek ci li daan wax rek depuis ñeenti at te jàmm rek tax ñoo jóg ndax réew mi nag mag ñi ko fi sosoon day nekkoon fi jàmm ci lañ ko sampoon ba Sénégal sax ñu tuddee ko Sénégal dëkku jàmm Sénégal dëkku teraanga defe naa nopp yépp dégg nañ loolu ñeenti at yi wala fukki at yi nag fitna yi fi nekk te dakk war nañ ko xoolaat bu baax waxtaan wi nag waxtaanu jàmm la comme niñ ko waxee waaye ñu ngi ko jëmee ci président de la république monsieur Macky Sall waxtaan wii message bii yaa ko moom monsieur le président de la république ñun de wax nañ ba sonn duñ tayal nag ndax réew mënoo caa dëkk jur ci ay njaboot ba pare nga noppi ca réew ma déedéet ndax ñi fi jiitu woon nekkoon fi daawuñu seetaan lu ma sa dañoo jóg wax kon nag ñun bu fekkee tey dañu bëgg a donn suñuy cosaan suñuy maam kon nañu fexe ba bu ñu seetaan musiba muy tàkk di law ba yàq loo xam ne waru koon yàq tey nag ñu ngi toll ci situation boo xam ne wax mënul ñàkk wootewuñu xeex wootewuñu xuloo waaye jàmm la woote monsieur le président de la République dañ lay ñaan gis nga coow lii nga topp xale bu jigéen bii ak Ousmane Sonko mii coow lii nga topp fay ko gas ko suul dara nekku ci Sénégal yi duñ ay dof fu waay mën a nekk ci àdduna bi xam nga ne lii du dara dara nekku ci gasal lii nga suul ko coow li jeex mbiri xale bu jigéen bii bu mu tas réew mi li ci joto a dee doy na seetal démb ak tey li faatu ci bakkan dara warula ko lu histoire bii nga ne alal fokk doo ko bàyyi monsieur le président de la République fayal lii mu jeex nit ñi am jàmm police bi am jàmm gendarme yi am jàmm militaires yi am jàmm dëkkandoor yi am jàmm dëkk bi dal ngeen la fayal lii mu jeex gis nga réew mi gannaaw bi yàlla wéyee jàmmi Sénégal yow la ko yow ko yàlla teg sa loxo ndax yow yaay responsabilité bi yaa yor police bi yaa yor gendarmerie bi yaa alkaati yi yaa yor sapeur yi yaa médecin yi lépp lépp ci ni nguur gi tëddee soloxo lañ ko teg soo bëggee jàmm rek jàmm am bu la neexee jàmm am tey ba faw waaye bu la neexee itam fitna am ba faw waaye te boobaa nag nit ñi xëy na duñ ko mën a muñ mën na la ca bañ a seetaan ndax réew mi nag kenn moomu ko ñu ñëpp ñoo ko bokk ku nekk am cër ñu bëgg nag nañ ko daan waxee bàyyil Ousmane Sonko mii tranquille yéen a yem ci réew mi tanewu la fi ko fi lii kenn defu ko woon seetal sa diggante sa borom seetal sa diggante ak kenn mësul laa teg yi fitna mësul am ci àdduna wala su mas naa am wax ñu ko ngeen waaye bàyyil Ousmane Sonko mii tranquillement njabootam am jàmm Ziguinchor am jàmm Kaolack am jàmm Ndakaaru am jàmm Saint-Louis am jàmm Louga am jàmm réew yëpp région yëpp am jàmm président de la République fayal lii mu jeex ay 23 ki 24 ki 25 bu mu ci am histoire bi na jeex jarul def ay pexe jarul dugal ay pexe jarul làmbar ay pexe seytaane boo ko toppee dina la yóbbu foo xam ne du la neex al fitna naaimatun yàlla tere na kuy fekk fi ne di nelaw nga pëkk-pëkkal ko mu jóg parce que bu jógee xamoo fu muy yem te lii fa jëm du baax fayal problème bii nga taxaw wax ak nit ñi yow yaa waxoon fii ne man kenn mënatul def lu ëpp ñaari màndaa yu toftale fere na nga ko bind nga ci wate nga ci loi kenn mënatul def ci Sénégal lu ëpp ñaari mandat yu toftale loolu leer na ñu ne waaw nga ne kon lu ngeen di waxati ñëpp yëg nañ ko amul ku ko yëgul ci Sénégal nga ñëw tey bëgg a taxaw def troisième mandat parce que ko wax ci troisième mandat waxul lu la neex nga dàq ko ko wax loo xam ne ci troisième mandat la jëm pour war nga ko mën a am doo ko wax dara loolu lu muy foog lu ci nit ñi foog mooy dañu yaakaar ne da nga bëgg def troisième candidature te loolu fitna lay indi te yàlla tere na kuy fekk fitna di nalaw nga di ko yee al fitna naimatun laala laa man ay kasaa ñun day dañuy wax dëgg te yàlla tax li ñuy wax mooy oote wu ñu xeex jàmm lañ bëgg ci réew mi te jàmm réew mi nag mu ngi ci sa loxo bi yow kenn nit soo bëggee jàmm am jàmm am taxawal digg Sénégal nga ne leen du ma présenté wu bàyyi nit ñi ñu présenté wu Sénégal yi ci des kum ci neex ñiy bëgg a parti ñi xam ne dañuy posé candidat yi ñëpp ba leen ñu posé seeni candidat lu waaye am jël nga organiser élection yi normal transparence nga am aw way wu rafet ci àdduna bi benn bakkan dootu tuuru benn xeex am police bi nelaw gendarmerie bi nelaw alkaati bi nelaw sapeur pompier bi am tranquillité hôpitaux yi médecins yi am xol mu dal ñu mën a liggéey waaye fi mu ne nii ñëpp ñëpp seen fite gi tëb médecin bi mënatul liggéey mu ngi ragal convocation bu ñëw su naa journaliste yi mënatul liggéey fa mu liggéey rajo ba mu ngi yaakaar ñu convoqué ko dégg nga sapeur pompier bi amatul jàmm même police bi gendarmerie bi amatuñu jàmm ngel la waaye monsieur le président de la république fayal seytaane wii mu fay complètement amul njëriñ billahi doo ci jëlee njëriñ te yow kat nee nga am na ay dossiers yoo xam ne yaa ci teg sa conc yow yaa ko wax am na dossier yoo xam ne man maa ci teg sama conc waaw lu tax lii mënoo ca teg sa conc mu jeex lii lu tax mënoo ca teg sa conc te bu la neexee nga teg sa conc mu jeex xoolal réew mi li fi nekk ci ay lënga lëng ay ñu jubadi te kenn jàpp leen dëgg-dëgg am na loo xam ne buñ ko seetaan Ousmane ko def nañ ko contrôle judiciaire mënul génn réew mi am ñeneen ñu fi def contrôle judiciaire ñoom ñu génn réew mi dem ba jidda te ñu nekk contrôle te kenn waxu leen dara ku am ndey ak ku ma amul ndey du defar réew nañ teg réew mi ci dëgg dëgg ba doonee buur ba léegi du folleeku suñ bëggee jàmm am na dëgg taxaw suñ bëggee jàmm am na dëgg taxaw réew boo ci nekkee am ñaari mandat ak ñaari at def ci ab Wade juróom-ñaari at wala juróom at mu ñaar fukki at doyalal bàyyil ñu ñaanal la yàlla ñu ñaan laante ci jàmm Sénégal kat jàmm rek rek lañ soxla nañ indi jàmm ci dëkk bi lii xew démb ak tey métti na dara waralu ko lu topp coow lii rek président de la République ñu ngi lay ñaan jàmm fayal wax jii mu jeex gasal pax nga suul wax ji mu jeex parce que am na dossier yoo xam ne sa coonc nga ci teg tegal sa coonc ci lii mu yem fii Sénégal yi joxante jàmm Ousmane Sonko sa frère la yow frère am nga mu ngi dëkk Casamance nga dëkk Ndakaaru mu dëkk Ndakaaru nga dëkk Casamance ni mu dëkkee Casamance noonu nga fa dëkkee ni Ousmane Sonko dëkkee Casamance noonu nga fa dëkkee ni nga dëkkee Dakar Ousmane Sonko dëkkee Dakar ni nga dëkkee Dakar Ousmane Sonko dëkkee Dakar comme yow réew mi ñu ñëpp ñoo yem kenn tanu fi kenn waaye di tànnal kuy bokk ak ku dul bokk fitna lay indi parce que yow kenn defu ko woon bi nga bëggee élection kenn kenn baariwu la kenn toppale di la sonal kenn demut di la jëli jëli wuñ la fenn waajile waajile président de la république indil jàmm ci réew mi réew mi jàmm fi xaj taxawal nga ne du ma wu xale yi tëj kaso na leen génne ñu ñibbi seen i kër tëj du du solution de jàppi tëj jàppi tëj jàppi tëj du solution nañ doxal dëgg ci tribunal bi dëgg tribunal bi dañ ko fi fekk ay juge fi nekkoon ak i procureur dañ daan doxal yoon ngeen la lu waaye def ci lu dëng de mu ngi lay xaar du yàgg nga ko nañ bàyyi réew mi mu dal teg ko ci jàmm teg ko ci dëgg dossier bii ngel la waay gas ko suul ni nga tegee yenn dossiers yi sa conc teg ko ci dossier bii billaahi du la jural njëriñ te dana indi fitna ci réew mi ni ñaa ngi continuer di faatu rek mu ngi bëgg a bëri te dara wara ku lu benn dossier benn xale bu jigéen monsieur le président de la jàmm ci lañ la woo wootewuñu xeex wootewuñu lenn lu rut stabilité Sénégal réew mi sonn nañu réew mi sonn nañu kenn lekkatul kenn naanatul kenn fajootul yow def ñaari mandat ak ñaari at ñu naan ay kankanaak yéen ñi dem ci télé yi di wax ba leen li ngeen di def bu leen taal Sénégal li ngeen di def taal Sénégal la ab géwél bu ci dem naan la da war a nekk troisième candidature mu ngi lay dugal ñu bon ñu bon parce que loo ku koy wax rek baaxuloo ku dem taxaw di la puus pour na laa defal troisième candidature mu ngi yàq Sénégal nit ku baax du def loolu nañu bàyyi li ñuy def bu ñu yàq réew mi Sénégal bu ñu yàq Sénégal Sénégal dëkk bu tedd la loolu lañ fi xamoon dëkku teraanga lañ fi xamoon dëkku jàmm mais léegi fi nekk nii daanaka kenn ñemeetu fee ñëw kenn nelawatul kenn nelawatul police ak tàndarma ak pompier ak militaire ak kenn amatul jàmm ku xëy yaa ngi takk ay kenn xamut nu toll ci douze kilos di ko jangal jangaree yaa ngi daw yaa ngi yéeg yaa ngi wàcc. waaw lii lu ko jar lan moo jar lii monsieur le président de la république indil jàmm monsieur le président de la république lii mu jeex ni nga waxee woon ne yaa teg ci lii conc te waxee ko tege ko conc ci lii mu jeex ngeen la waaye fayal dossier bi mu jeex ni ñaam jàmm boo ko defal fa lii jëm du baax al fitna naaimatun laala laa man akasaha suñ borom nee na rëbb na kii fekk fi ne di nelaw mu pëkk-pëkkal ko mu jog parce que su jógee bu tàkkee xamoo fu muy yem li nga yaakaar mën na bañ a demee ni nga ko li nga foog mën na bañ a demee foogee ëllëgi ëllëg yàlla la kenn xam ëllëg luy am nañu bàyyi réew mi mu dal histoire bi mu ngi bëgg a yoo mu ngi bëgg indi problème ci réew mi te jaru ko bàyyil ko Sonko mu dal bàyyil candidature yi ñu posé seeni candidat réew mi ñoo kenn ku ne danga fi am cër ni nga fi amee cër noonu la fi Ousmane Sonko amee cër noonu la fi keneen amee cër Sénégal kenn moomu ko ñëpp a ci yem du yow yaa tànnal kenn kuy dem ak ku dem mënul nekk indil jàmm indil jàmm jàmm lañ la laaj indil jàmm fayal dossier bii mu jeex ay 23 ki 24 na lii jeex ñëpp am jàmm joxante loxo asalaamaaleykum.